sant Serigne Touba nag bu baax a baax a baax a baax sant itam nag sunu ñaari waajur yi nun ñëpp ku fi teew ku ne rek sunu waajur yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñu meññ wax dëgg yàlla xàllal ñu yoon woo xam ne buñ ci jaaree te topp ca liñ ñu xàllaloon mën nañoo dem ba fañ bëgg a yegg fépp te pakk du féel dégg duñu jam ñoo ngi leen di ñaanal ñoo ñëwee yàlla xare leen ci àjjana ya gën a kowe ci barke borom Touba ñañ fa fekk ñëpp ak ña leen fay fekk di wëlbatiku nag di commencé ay cant yoo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci ñii nga xam ne ñoo meññi gone gi nga xam ne moom lañ ñu dénk tey jii muy sëriñ Bàcc Ñang ak soxna Fat Jaañ cant yow gu ñu leen di sant leen am na fu mu tàmbalee woom waaye amul fu mu yem ndax ni ma waxoon biig fee rek mbir mi bañ ko tàmbalee ba fi mu ne yàlla xam ne amuñu ci benn jafe-jafe jafe boo xam ne teg nañ nu ko ci ban nañ ko tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim noonu lañ ko yeggale nii ci alhamdulilahi rabbil alamin yalla na gën a yàgg te yàlla na gën a sax te yàlla na barkeel ndax kii nga xam ne mooy suñu doom ñu yabalan ko mu dem fa gis fa lu mu bëgg ba bëgg ko diir ba mu fa commencé dugg ba tey jii nga xam ne xale bi moom itam toxoon na foofu ñëw fii musu fa dem ba deg fa dara lako nakari musu musu fa dem tam ñu xor ñu ko ci lenn musu wa dem ñu tek ko ci lenn lo xamne mënu ko bu fay dem lepp lo xamne man nako lola do nga la fay dem te bu lu ko neex la fay reeg lekk lu ko neex la fay naan lu ko neex la fay deg ba bu mu fay joge kon lolu bu la ko mbokk defale ba yalla dogal la ngeen dun mebe sunu borom am ci lu mu yeggale am ci lu ci dess waye lolu yalla ko sante dang ko gëreem dang ko ñaanal yalla yàlla guddal fanam te wéral cëram di sant ñëpp nag mboolem ku fi ak koo xam ne yéen nga fi teew ñoo ngi sant ñëpp li ma mbir mi bërkaati démb ba fii ne képp koo xam ne bokk naa ak nun muy ci meen muy ci dër muy ci geño boobaak léegi kenn dalluwut kenn noppaluwut ngir bëgg lu baax rek ak lu bëgg a mbir mi ak lu bëgg a baaxal mbir mi ba suñu borom defal na defal na ko defal na ko bu baaxa baaxa baax nu ko sunu jor kon ñoom ñepp fi ne kenn ku nek amel nañ la jaajeuf yal na nu yàgg ànd lu mel ni ba di ko rafetal di ko rafetal ba suñu mag ñi ko bàyyi buñ fuy yooyu ñi ñu fay bayyi ñoom tam man ko gëna continuer muy rafet parce que sant nañ bu baax a baax baax sant itam nak gone yi nga xamne ndumbe may sax day jëkk lay jëkk ndax nag soxna màgg ci la mi nga xam ne moo ànd nag soxna màgg sàmb ñu nekk ca toolu baay mudu mbay di liggéey ba lii am tey ñaar ñooñee dem moom mu des fi waaye wax dëgg yàlla des gi mu fi des moom itam la ñaar ñoo ñooñee war na def lépp moom itam ma nga ca taxaw kem kattanam te xeebuñu ci ay jéegoom ndax buntu kër bee daara di di nekk kat ak buntu kër bii kat bu mooy seet ne bu bëgg dee gën a am buntu kër bii la gën a bëgg ndax xam ne ne ñoo jëkk a juddu te ñoo ñoo ñooy magi daaro kon bu bëgg dee am rek te ñee seen waajur dundatul moom yàlla bàyyi na ko yaakaar naa lu mu gën a yéene lu bëgg bëgg bëgg daaroo yaakaar naa ni mu gën a yéene gone yi moo ëpp doole loola kon màggat noo koy ñaanal fan wu gudd mu yàgg uuf njaboot gi barke borom Tuubaa di gërëm numbe mbay mi nga xam ne si itam moom tam nag bu dutoon ma màggat ci lëm kon dañuy wax mooy màggat sàmb ci kër gi moom itam dañ koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla ay atam fi mu toll wuute naag jëfam am na ñuy dund lu ëpp doole foofu li muy dund sax te numbe ak jotalam ak pastéefam ñooñu xalaatu ñoo yegg fa fa numbe xelam nekk ak pastéefam kon noo koy ñaanal moom itam nag yàlla guddal fanam wéeral ceeru yàggal ko fi kanam càmmeñam yii nag waaw yàggal ko fi kanam càmmeñam yii ba ñoom itam liñ ko yéene suñu borom kàttanal la bañ mën koo def nañ ko bëggee di sant nag jeeg yi nga xam ne yàlla dogal na ñoo jëkk a wàcc ci kër gi ndax fii tey tey jii moom ah xëy soxna say ñang kenn jiitu ko fi moom ci ci ci ci ñoom ñooñu nga xam ne ay goro lañu war a tekya ca say soose mee teg astu sàmb xam nga yokko la ñu ñaan ñun ñëpp mo war atay ta saaro waye bu ñëpp nekkante ci biir kër gi ah tabarakallah tabarakallah dañu xam ni mu wara doxé doxee xam nañ ko bu baaxa baax waye nak ati limi sore sore xol yi mom ben la té lool moy li gëna am solo ndax bo kër gi do nañ kër te xol yo ya féewoo itam do am solo waye xol yi mom ben la ndax daaro mii nopp ab nu bay rek lay déglu fu mu ko ne jógal dina jóg bu ko nee doxal dina dox bu ko yónnee dina dem bu ko laajee alalam di ko jox sëñ tey ba mee fee mu nekk kii ko fi bàyyi am di mee ko fi bàyyi guddi tey bu ko ne woon nag ah sëriñ kat te foofa moom daal mënatuma la faa bàyyi yàlla xam ne guddi tey du fa fanaan du fa fanaan tey ndigalam la fa dekke kon maanaam loolu mooy li gën a am solo Ati nak dañu ñaan yalla sax mu gëna yokko yokku nak ndax ak yokkute la waye xol yi mom na doon ben rek xol yi na doon ben rek sa sëriñ sëriñ tay ba ak ak daaro may am di may sant na leen cant go xamne amna fu mu am ay rak ngeen yo topp ci gënaaw ak ngumb te rëkku leen ko kon sant na leen mi ngi leen di ñaara yalla guddal seen fan té wëral seen ciir say ñang ni mako waxar say ñang ci biir waaye kee itam génnut kër gi kenn ci génnut kër gi ci ñoom at yi moo tasaare waaye kenn ci génnut kër gi yéen itam kenn ku nekk sant nañ leen ndax ku ci nekk mbokk nga di doom ñu jël la nga ñëw ci kër gi xam nag li nga doon ci kër gi mu wóor na ne boo saytoon ci kër gi itam war ngaa yore kër gi te boo doon góor itam war ngaa yore kër gi ñu futti ko takk seeni ndigg ànd ak seen boroom kër di len muñal nak bu baax a baax aduna sepp xam ñu ngi len di muñal xooluñu daray kenn xooluñu len kenn li seen jëkkër am rek doyna len luñ amut muñ nañ ko wa kon ñooñu itam ñoo ngi len dess ñaanal muñ gogu ñuy def dafa am luñ ci bëgg jigen sa buy sey tey muñ di góorgóorlu dom ju baax dong la ci bëgg yalla na len yalla may li ngeen di jeex ci ëtt bi yalla na len ko ci yalla may seen xol sedd ci ñoom man mii doonoon gone nekkan fi sama mag mu di ma yónni may dox soxla yi di dem ka bu ci ma bu ma ci dem la ma fa doxoon xam naa ko kañ ma fa joxoon xam naa ko waaye bam mu ci kër itam la muy jëfe xam naa ko ndax du ma te gone gone yi moom du ma te ñoom dara lu ñu nekk dinañ ma ko wax lu ñuy bëgg a nekk sax nañ ma ko wax kon maa ngi leen di ñaar ñoom itam ñu gudd fan te yàlla guddal seen te yokk seen kàttan bu baax a baax a baax a baax ah leen ni tuuti rek laa ci dolli loo xam ne rek kii gan la anam kooku cekka gan la waaw waaw numbe mais wax na ma ne man seen goro laa seen lone laa maa ngi ci waaye say say ñang moo di jeeg fi mu ne ci biir kër gi kon cekka mii ñëw nee na bëgg naa na ko dina ko teg ci loxob say ñang ñoom moom du fi nekk say ñang ñuy defante yaari ay ndax say ab goro la fi ne kon du defante moom yaari ay nee na fab na cekka teg ko ci loxob say ñang say moom bu mu demee ci ca waañ wa ab goroom a ngi noonu suy duggi marché nag mu am fukki dërëmam wala ge ah, saamu kanim wala dara dimbalee ko alhamdulilah moo ko gorooma waaye du du taal mukk muy taal jox na ko ci xol bu sedd guy jox na ko ci xol bu sedd guy jox na ko ci xol bu sedd guy ah kooku kooku kii moomu nu mu tudd. cekk na xam ne say soose ab gorooma sax ci wet waaye nag xaw naa doon moroomam ba tax na na na na na na na topp say soose te na ko say soose tofloo ndax ñoom dañoo war di ànd say bu jógee. na e cekka jógoonu dem bu dee fu ñu war a dem bu fekkee da fu ñu war a dem te war a dem ci seeni morom na ko ne jo say jógoonu dem maanaam daal koy xaritu say so daal mën na doon xaritu kooku jekk waaye koo xam ne euh, kii wutul ko ba mu wut xariti boppam na def say soose mu def xaritam rek ñuy ànd soy say say ñaan loolu daal moom mooy daanaka man lay ma ci war a wax nga xam ne moom la rek te itam yàlla boole leen te yàlla bu seytaane dugg seen place benn yoon jërëjëf borom Tuubaa Mbàkke sant naa man nag sant naa ñëpp moom sant naa ñëpp góor ak jigéen naa baal naa ak ñëpp itam na ma ñëpp baal ak waaw ak ke borom kenn ku ci am na loolu te yow boo ci am na lu rafet loolu wax nga wax ko bu ko defee kii moom itam waxtaan bi am lu ma bëgg bu moo xam yonte gannaaw ba nu santee yàlla sant yonent bi sant Serigne Touba sant sunuy waajur noo ngi sant comme ni ko Baye taala waxee rek Serigne Modou Mbaye ak ñamande loon démb tey soo dikk muy sama yaay màggat yi ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak soxna Njuufa ñag mu nga xam ne moom lañ fi nekkaloon démb xëy na lii day yàlla dogal na jóge ni fi waaye nu yàlla dogal sunu borom la dañ ko fee fekk te fi koy baax nañ ànde woon démb rafet na lool ngi leen ci sant di leen balaq di leen balaq àq tane ko Baye Tall wax yeen ñepp wax ji euh, sant euh, gi mom genn bam ba mu danaka da euh, munu ma ñak wax way danaka wax ji mënoon na ñak Baye Tall no ngi sant di la balaq te di la balaq te di la xamal ne la sun xol sedd na sunum xel dal na ndaxte li ma indi cheikh amdou di jall daan wax mu ko mu reer musibe la ñang balu dalu la sunum xel dal na guy sama mag yela fi baye nga mu wóor yow ya fi nek yow la fi yalla tek nungu nga ko doxal nga ko noo ngi ñaan kep kep ku fi tok ma ngi lay ñaan ci doli Serigne Touba na nga ne Baye taala Niang yalla na fi yag te wér yalla ko fi sa borom ay katan ak man ak wér ku ko wax yalla yalla yalla nga wér yalla nga am katan dara ji Serigne Touba Baye jere jëf ñang balo sunu xol na sunum xel dal na sa maggay di tedd ci seenum xel dal na jëf ñang ndumbe ndumbe mbay ni ko Baye Talla waxee rek ñang baalo mbay noo lay sant di gërëm di la ñaanal yal na la yàlla Serigne Touba sàmm sàmm sa njaboot ak mboolem mi nga fi nekkal wax ji moom mën naa ba ñu gudd Baye taala wax nga lépp ñang maa ngi baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq ngir jëmmi yàlla a yonte bi Serigne Touba di ñaan yàlla ay yonte bi Cheikh Mountakha mi fi toogal Serigne Touba yàlla na fi yàgg te ak mboolem jobatu Mbàkke Cheikh Rijal Gëm Bamba mii fi toog toogaayu Serigne Rijal ak toogaayu Cheikh Amdi Rijal ak rakkam yàlla nañ fi yàgg bi yàlla nañ fi saa borom yàgg li ñu yéene liggéeyal Cheikh Moustapha Mohamed yàlla nañ saa borom may kattan ak man ñu liggéey ko ni ko bëgg a liggéey te ñaandu ko ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di baalu àq yéen ñëpp na gën a baalu àq aleykum salaam wa ñoo ngi nuyu ñëpp te siyaar ñëpp tey wàcc suñu jëmm ci këppaaru kilifa fi ne yëpp xam naa mu mel na kàddu yu fi jóge moom euh, sos ci yu mel ni ñoom dana xaw a jafe waye ginaaw xaj na ndigal lañ ci am rek bu nab nabee man na am ñu mëna dalal li ci dess suñu kaddu yi ñuy yëkëti nak sama kaddu ak kaddu taala soose mi ak am di mbay ak suñuy rak ñu ngi wàcce suñu jëm ci kanam kilifa yi muy nijaay taala mi ak cheikh mbay mi ak ñu jigeen ñi nga xam ñoy suñu kilifa ñu di yalla dogal na am ñu ñu suñu ginnaaw waye kaddu yëpp genn la fofu rek lañu sos suñu kaddu ëtt bi nag dafay am lu fi am mbay waxan dafa waxan ne maag taala soose mi ak moom maanaam suukar ak soow la naan wala boole tuur rek te def naa loolu am loolu nag sant yàlla gu wér lañ ci am ndax ñun defuñu ko way jur yaa ko def li ñu ci war rek mooy rafetal luñ ci ñaawa rek ci ñun la manqué waaye ñoom ànd nañ ko rafetal na ne yaa taala ñoo ngi ànd ñun ñooñu ak suñuy rakk ak suñuy doom di leen sant te ñuy ànd ak yéen di ñaanal mag ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu jiitu muy sa mag yi jiitu woon nga kippaaru woon ci ñoom ñi nga ko waxee léegi ku mel ni nijaay Moudou Mbaye ak ah, ña nga xam ne maanaam yàlla dogal na muy mag ñoo xam ne nekkal nga ci seen kippaar di ñaanal ñi nga xam ne yàlla dogal nu ñu di ay way dawlu kenn bokk na ci ko xam duñ ko mën a ñàkk tudd muy soxna Yaxarambaay dañ leen fasaale ñoom ñëpp def fukki lixlaas ak ben ben bu nek and ak bismillahir rahmanir rahim ñu leen yool bi ndax ñoo waral jotaay yi waaw on subhanallahi min shaitan rajim ñoo ngi ànd ñun ñëpp di leen sant te di leen ñaanal ngeen yagg suñu karam taxaway bi yagg lool bu barke Serigne Touba ni ko Cheikh mbay wax rek non la dem mustafa mbay dafa wax ne ak cantam mi ngi ko tambali ci yeen ñi di kilifa yi ñu leen ni sant bu baax ndax xam na ne li leen war lépp matale ngeen ko mu ku mel ni yow meeg Cheikh Mbaye ak ñi ngeen ko war a seqal ñëpp ba ci soxna Maga Samb mi ni nga ko waxee léegi. xam naa ñun luñ ci wax rek waxaat lay doon waaye dafa mel ni lu na ci seen làmmiñ laal na ko soxna Maga Samb bi bi yàlla dogalee mu nekkan feek sama bàjjen Maga Samb ci biir kër gi doon wëf gone yi ak sama niyaa Modou Mbaye bi yàlla dogalee ñoom ñooñu suñu borom dogalub suñu borom egsi ci ñoom ñoom ñooñu lan daa doxal lépp boole na ko di ko dox wuf na gone yi féete leen fa la ñooñu féete kon moom it na ko fi yàlla yàggal ci barke Serigne Touba am di dafa wax ne bi dogal yooyu yëpp amee nag suñu borom dogal ko moom yàlla dogal ngeen di ay way juróom yàlla dogal muy kilifa gone yi tey suñu borom teg ko ci kanam ndax nin nag day nungu dogalub yàlla loolu la yàlla dogal ndax am na ko ko magan am na ñu ko jiitu woon waaye moom la yàlla dogal mu nekk fi tey bi mu fi nekkee tey ji dafa am ay rak am ay mag waaye am ay doom am lép am ay soxna mu wax na cant gi nag mi ngi koy tàmbalee ci soxna Njuufa Ñaŋ ba ci soxna Yaxara Mbaay ba ci ñii fi ñëw muy say ñag mii ak say soosamee ngay wax ba ci kii fi mujj wàcc ak yeeg bu jaar ci kër gi astu sàmm nee na sant na ñëpp wax na ma fii ci ngoon na ma Serigne Mbaye mii ngeen di wax lii nga wax léegi mooy fu fi waay mën a ne mm. ndigal la fa bàyyi waay ëtt bi moom benn la mm-hmm. nee na ma màggal ba ma ko woone ko damaa bëgg nga màggal si kër gi daa tëj këram ñëw fii fekk ma ci kër gi màggal si kon wax jooju loolu leeral na ko waaw loolu firndeel na ko mm-hmm. ngumb mii moom moom a dëkk lu am di bëgg ma nga ci mm-hmm. saa bu xëyee moom day diglu mm-hmm. daara mbay moom noonu doom yi nga xaa yàlla dogal na ñuy seeni doom ci waar woow rek la ñuy mën a aw ndax nit itam lu mu nàmp rek lay mën a tokkam ci ko looloo fi nekk nit lu mu nàmp rek lay mën a tokkam ci te jataay yu mel ni ab soññee la ndax bu fekkee mag ñaa ko mag ñaa ko sosoon yéen kippaaru ci ñoom doon ko dox ci mag ñi ba tey ñu war koo jëlee ci yéen wala buñ ko jëlee gu ci yéen di ko ànd ak yéen ba buñ ko jëlee mën koo dox loolu daf cee am solo am na may ne mi ngi ñaanal soxnaam yëpp waaw nee na sant na ñëpp itam mi ngi ñaanal rakkam yëpp rakk yi nag moom nii ngeen ko defee rek la ko son borom santaane te moo gën te moo gën a noppale mhm. ndax daanaa dégg ñu na sëñ Mourou Moustapha da daa wax ne damaa bëgg ngeen booloo ndax nee na su ngeen booloo ba liggéey yowmal xiyaam du ngeen may noppal ndax su ngeen boolewut dama leen di boole ba noppi doog leen a jébbal Serigne Touba kon su ma leen fekk ngeen booloo nag ci la ma gën a noppale kon booloo gi moo gën te adduna lii fi ne te ñi ñuy yaakaar mooy ki mag day jiitu ka ca war a topp topp ca loolu nag bu ko kenn ku ne xamee coow mën naa bañ am te kenn ku ne mën naa jox sa morom ab cëram te leew gis lu ne nag yàllaa ko dogal ki yàlla dogal mag la nga nungu koo topp nungu koo joxub cër mm. saa bu sa cër excès dana rafet te dina yomb ci yow muy wax ne maanaam soxna Ndoumbé Mbaye mi ni ngeen ko waxee léegi wax na na mooy magam de moo ngumb mii ay rakkam topp ci moom waaye nee na taxawu fi taxawaay maanaam mag ak rak taxawaay soxna Maga Samb la fi taxawe nee ci biir kër gi fii nee na muy moom ak i rakkam ah, ku ci xewle ku ne nee na Ndoumbé Mbaye taxawaay ba mu ciy taxaw nee na maanaam dunu taxawaay rek doonu taxawaay mag taxawaay soxna Maga Samb lay taxawee lool na moom leer nañu ñun ñëpp xanaa maanaam xanaa wax ko nit ñi dégg ko rek waaye maanaam moom jëf na ko ñu gis wax na ko ñu dégg kon buñ ko waxee maanaam nit ñu mën nañ koo gëm léegi nag li ci des moom wax na na nii nga ko waxee cekk Samb mii cekk ñang bu ñëwee sosu ca soxna say soose mais topp ci moom say soose topp ci maanaam say ñang mii ñu ñëpp nañuy ànd di socc ndumbe mbay di ndiglu ndigal ci moom mhm. ndax ñoom ay góor lañ dañuy dem di liggéey mhm. di leen fi bàyyi mhm. moom mi fi nekk ak ñoom nag nañuy diglu ndigalam su leen digalee nañ ko def su leen teree ñu baay nee na suñ ko defee mel na ne moom li muy digle ña nga ca loolu daal mooy wax sëñ am ni mbay ginnaaw jataay bi dañoo bëgg mu gàtt kon ñoo ngi tuub bu baax a baax a baax xam naa lu ci dëng daal doomu aadama matul waaye moom gën nañ mu jóg asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu ala sama sama mag ji wax na ko ak saa yaari mag yëpp wax nañ li fi ma ta wax lépp waaye bàcc nag mu leen dénk doom ji nee na xolam sedd na guy ba ngeen weesoo néeg yëpp ci moom la xolam sedd man mi sama xol tàngu ndax dama fay doon say ñang sama saa doomi xalifa macha allah mel na ko neex kon su ma ko andee mu neex su ngeen su ñu yoxtan su ngeen dikkee na leen di gàntu waaye dafa neex moo tax bu ngeen dikkee du dolliwaat leen fekk nag su mel ne yaayam ji duñ ci am dara lu naqari ndax yaayam de musta xor ñooñal baayam musta def neen te la jël kenn tam nak musu ko laaj dépasse musu ko laaj café musu ko laaj sukkar faatu kenn xamal ko dara li ñu ñaan nag sagal gi mu sagal bàcc nag yàlla na ne sëñ Fallou Mbacké sagal ba ñëpp xam na sag am na sant nañ gërëm nañ nag fi mu dugg moom allah noo ci am yaakaar ndax say nag mais baa ko ndee ba léegi amatul dara la ko naqari waxuñu dara la ko naqari bu neex tan doon sëppal doon sifaat dafa neex moo tax nu andiwaat yàlla na gën a neex ba lu ngeen laajaat nu joxaat leen suñu xol seet na guy saa mag yeeg ñi ma mag ak ñi nga xam ne ñooy ñooy saay mag sant naa ñëpp gën naa ñëpp yal na yàlla guddal seenu fan kontaan nañ suñu xol seet na guy bàcc nag nee na yal na yàlla sëy bi bu ci daa dàq yal na ko buy gën a dàq nee na kontaan na xolam seet na sëy nag mi fa indi nag da naqari ma ci moom sëy yal na sëñ Fallou Mbacke defar defar say mbir saa mag ji jigéen ji di nguur a ñang maa ngi koy gërëm ndax day mag bi ma bëgg di ma jàppale ci ba may ba may nekkee xele maa ngi ñaan lépp lépp lu mu am yàlla nakusin ko sëñ Fallou Mbacke barkel ba kenn ku ci bëgg jarignu jarignu ta sama xol siir na guy sant na ñepp ñepp balu ak ñepp ma nga siar ñepp tam yàlla na yalla guddal fan wi dara jël seigne Muntaxa yalla fi yag te balu ak no ngi balu ak ñepp ak du tuubal ñepp ci siar ñepp waaw damay tok xëc sama sey ñu tubbe ma sama bol dafa ma sama lepp man di sama tey dama fii saa sama Lagu lebih banyak. Banyak. Boy, what's up, man? Thank you. waaw non voilà. voilà. gis nga ne wax deug yalla content nañ de lepp ngi ne ma sha allah barki borom Touba fas nañu xaalis yóbbu len ceeb yóbbu diwlin di ñaan suñu sang yi rek suñu borom fal len cat may len fanu gudd ak wergu yaram ba ñepp fekke lépp. waaw content rek. macha allah ba mënu ñu wax sant suñu mbokk yëpp nak sant suñu dëkkandoo yëpp ñëpp a jàppee bis ba légui kenn amatu jàmm choono bu ci war rek nit ñaa ci. kenn noppalu kenn àndiwut ñoo ngi sant rek di sant rek sant ñëpp nag. ci la doon ñëwal di noppalu. ah ci laa yor. Eh, waaw waaw. moom mii nag moom mooy référence bu mag bi nag. Ah, waaw waaw. <laughs> puuca puuca. ah xoolal li.